loolu dina jox mais danga ne réew mi kenn du ko jox kuy dàmpalu président. yaa Cheikhul Ibrahima Baba Lamine Diassé. loolu nga ko wax ñëpp dégg ko. waxuma ko. tey boo bëggee ma tegal loxo ñëpp dégg ko. ndax réew mi duñ ko joxe kuy saaga ak xuloo ak a guddi. loolu xam ne ku ko mos foo jaar fi tësu. su mais mais aussi lu lu la xërtal ba nga wax wax jooju. mais moo fi ku ko moo di man pour man dara ji rasulillahi féetale ma ku yàlla bind ci àddina moo la koo xam ni nit ñaa ngi koy wax di tooñaate mais waxuma. non tooñaate wuñu gars daf dalee na métti. non da may déglu léegi ay. déglu ma ce que dama la ne moo boobu est man maa ko jëkk tudd wala maa ko mujj tudd. mais dem ba jàkkaarloo le président de la ne ko réew mi yow lañ koy jox ndax duñ ko jox koo xam te ne day dàmpalu ji aussi. loolu attaque la. gis nga ñi war a man coow coowal Sénégal mosuma cee dégg. man daal je suis peur daal. ah mais bokk nga ji ko créé da instant wala ko sos instant yi. non non non yéen yi di laaj nit ba mu wax ak yéen si sa bu gudd ngeen dagg ko seet la nga xam ne mooy tax seetaan leen te il faut ngeen arrêté. dañu attaqué nag ci plateau bi yow da wax sax wax bu caractère ba mu koy wax benn journaliste na fa woon ah, wax loowu la woon yaa waxal sa bopp li nga wax waxal sama bopp voilà voilà da ngay su ko defee damay assumer waaw mais li nga def ah, a dir duma dama la ne président mooy taraayiroo sax nit ñi yow yàlla nga taraayir jotoo ko ci xuloo jotoo ko ci dàmpalu duma ko moom duma ko kon léegi da ngaa maanaam delluwaat nga ci say kaddu maanaam kaddu yooyu noonu baalu nga ci am na wala amul waaw ah, loolu dafa leer comme que ni ñu ko waxee homme politique nga. aussi communicateur traditionnel nga. communicateur bi Teko. D'accord. d' accord léegi kon ça. d' homme politique nga léegi kon. oui moom. ah bon. Eh! homme politique nga moo tax ngay attaquer attaqué homme politique. non non non attaqué wu ma ko gis nga moo boobu su ma wóoroon ne su ma ko waxee mu metti léegi du ma ko wax ndax moom maa ngi koy ñaanal mu gudd fan ñaanal ku wér ñaanal ko njabootam parce que marqué na empreinte ci taarix. ah mais fii junni ak histoire dana bind turam. parce que dama la wax ne la opposition mënta ñàkk. dëgg la. opposition dafa baax ci am réew ndax opposition mooy pousse poire opposition mooy soñu poire. waaw ay ah, bu am solo ci biir réew mi. muy Ousmane Sonko moom. bu yàlla defoon tey mu jël élection yi. yow nan nga koy xoolee ëllëg si biir. xool kan Ousmane Sonko. fii lu ne nit wax na ko fi. awma aw nu ma koy xoolee. lu dul bu bu yàlla dogaloon réew mi tege ci loxoom. Hmm. ndokkeel ko félicité ko ñaanal ko yàlla mu gouverner ci jàmm. boo wax ne kuy dàmp kay dàmp la ju Sénégal jox réew mi. non non loolu dama ne boobu pass tëj naa ko xam. yëpp ku gëm valeur ku gëm dignité ku gëm ngor ku am deret bi daw sa yaram war nga mën a ànd def groupe. ànd ak Ousmane Sonko ànd ak Ousmane Sonko ànd ak yeneen ndax ñooñu ñoo ànd tey jii bañ ci réew mi. loolu nag mbiri yàlla la ndax doole man dëgg mais dëgg mooy mujj nañ fi nekk di jaay doole Khalifa Sall ak ñeneen wóor na leen ne loolu du masa jàll ñu ngi am doole nag waaye boo demee ci armée yi jege nii ak armée yële ak armée Touba yi ak yu Tiwaawan yi xam ne doole doole jaru jaay kenn de kenn am doole muy yàlla yàlla tabaaraka wa taala allah ànd Sonko